xam nga mën nañ xam naka ngay waajalee sa diggante ak Bombardier ndax yow ak Bombardier mii nañ te am nga fu ngeen jaar. waaw ñu koy bu bu bu dara xel. préparé nañ combat bi maanaam duñ ko war a luñ ci war def rek def nañ ko ci bàyyi benn détail di ci ñaan yàlla suñu borom yor ndam suñu borom may ndam rabbi combat bi ci poids wala. non non yokkuma ci poids gis ngeen mooy poids yokkul moom xam nga naaj quoi joob nañ ni ñu ci war a joob nekk nañ ci poids de forme macha allah daal. di nuyu tamit aussi suma kët kañ yi ñu ngi koy nuyu bu baax Diallo maa ngi koy bu baax a baax a baax parce que may door ne ba toll fii la. Bolo tamit aussi mi ngi fi loo ko sonn tamit aussi combat bi la maa ngi nuyu waa SK yëpp kët Jigo maa ngi koy aussi tamit bu baax a baax a baax ak waa salle def sport Gambien tamit aussi aw ma seen maa ngi leen ah dinañ ñëw ci nuyoo yi ëmma mu mel ni da nga am combat boo ni comme ci moom nga woon euh, roi des bi te bombardier dane woon jeexaat ndax yow da ngay jeex wala doo jeex. non jeexaat moom mënut a ñàkk foog ñu jeexaat te dinañ fordom incha allah. waaw euh, tuuti. ama seen ñu bëgg a xam ndax combat bi ak sa par rapport sa combat bi nga njëkk am ak bombardier est-ce que ni nga entraîné woon ci combat boobu ak ni nga ko fonke woon noonu nga fonke combat bi. no bila bila bii inshallah bila incha voilà comme bi mom lolou mom saa def ko ba le 27 inshallah allah. mu mel ni mu mel ni Bombardier nee li des ci carrière am mu mel ni Bombardier nee li des ci carrière am dem di jëli ji ben mbeur ta mom forum la. lu lamb xam nañ ni forum la arbitre sifflé mbeur di dox ci kaw ndax lolou yang koy bayyi xel. deguma lo wax de dama ne Bombardier dafa melni ni li des ci carrière am dem di jëli benn mbeur ta ca digg géew ba ah day dog di la xaar ndax xam nga dina dem wala du dem. no combat bi munu dog di xaar dañuy daje bu mu ta ñak la day ñew no ci micro ngay waxee Sénégal ñoo lay seetaan adduna ñoo lay te combat bobu combat capital la bu am bu Bombardier taxawé est-ce que di ko jëli. jàmbaar le 27 ñu ci woo ñëpp denc combat bu neex jambar yalla yàlla ñu yàlla suturaal mu ngi tejj ndaanaan dëgg yaa ngi dégg wax bi waaw yalla ñu yàlla daal may mais combat buñ fonk la jambar di nga xex ak bombardier laaj rek jambar kuy dem guerre lepp ngay préparé non am dañu bëgg sénégalais tay tey li waral open presse bi dañu bëgg xam tay ëmb Sène lan la wara indil bombardier amoo danta wala bon kenn guerre di wax armes yi nga yóbbu mais ay armes fatales yi ñëw incha allah mais ñu bëri sànq dañ ne jox suñu micro mais dañ ne bu Bombardier taxawee Eumeu seen taxaw combat bi match nul la gën a jege te amateur yi xaaruñu loolu est ce que loolu yaa ngi koy bàyyi xel. waaw Bombardier mel ñu noonu jàmbaar la may jàmbaar loolu bu ko kenn séntu ci combat bi. ñëwal Mamadou Diouf nee na am na deux questions pour Eumeu waxal. waxal mu dégg waaw waxal ama seen ñu ngi lay nuyu d'abord di nuyu mbooloo bi yëpp ah, am naa ñaari question pour yow benn bi dañu ko jël ci Bombardier mu ne génne na slogan bu bees nee ku ko dóor abal ko yet bi dóor fayu beneen bi sa ñàkk a teew mbuur samedi bëggoon nañoo xam na lan moo ko waral. waaw ñàkk teew bi du leen rek lu dañoo voyage yi xam nga ci diggante bi aussi temps bi xool nañ ko mais duñ mën a fekk mbuur parce que tey boo xoolee ci ñu ngi njëkk a d'accord dem Mbour man ci laa bokk aussi du dëgg parce que yàgg na ñëw mais ñëw bu muy ñëw Dakar tamit daje lay doon man damay jug dem ci ci ci télé wala kon daje la tamit aussi xëy na noonu la yàlla suñu borom mais tamit aussi amul benn problème waa Mbour yëpp maa ngi leen di jégalu ci ñàkk ba a teew bi ak Sénégalais yëpp voilà te tamit Mbour la fa bëri ay supporters tey sama supporters yi demoon mënu ma wax nu mu toll su ma ko daanee dem Mbour nuyu gars moo daan tax waaw. waaw ñu koy préparé jàmbaar ñu waajal combat bi waajal bu yéeme nee na bii mooy xupp bi. yàlla bi am ndam yàlla ñu yàlla may ndam. nee na bi mooy xupp bi ndax bi mooy ñaari ñaari combat yaa ngi ci ñaari contrat sa digganteeg Bombardier ak sa digganteeg Balla Gaye te bii mooy premier xupp bi. incha allah ci kàttanu yàlla ci Bombardier lañ nekk Balla Gaye ñëwagul a a romance boobu na nga ñëwee woon mbër bi carrément ci jeexaay bi ci entraînement bi. devant nga ma gisaat état de forme est-ce que lu mu dese woon sa diggante kii nga dem ba jeex mën nañ koo xaar sa diggante ak combat bi lépp la ñuy waajal jàmbaar mooy lu mu <laughs> waaw. liggéey bi métti rek nee na dafa gis ne da nga wàññeeku lan moo tax nga wàññi poids bi waaw liggéey bi rek la Bombardier boo bëggee bëri moom faw nga wàññi poids wala non non di keesu wàññi poids xëy na cardio bi liñ liggéey moo bëri rek waaw liñ liggéey ci combat bi moo waral loolu du dëgg mais nag ñi ngi ñaan yàlla yàlla mi am ndam yàlla ñu yàlla may ndam jàmbaar incha allah amateur nañ kontaan yàlla ma seen news waaw waaw jàmbaar jërëjëf yàlla ma nee ndax ku bi nga xamante bombardier joxoon na ah ndax yaa ngi ku bi nga xamante sa premier combat bi ngay jël roi des arènes ak bombardier ku boobu la bombardier jox ndax yaa koy sóoraale. non bu wax ñaanuma xam nga di di jël kaay kii demee noonu mais amuñu leen ñu ragal ci combat bi du xex bi du bëri bi kuma xam-xam ni yàgg naa jur ay coup fatal téye suma ngor ak suma conscience dem liggéey yàlla mayoon ndam kon loolu nekkul dara combat la mën na jël coup mën naa jël coup waaye moom na jël coup ci bi incha allah ñaan Thank you. nee na lan ngay wax say supporters comme yow yaay dalal Bombardier fii ci arène nationale pour bu lamb ji jeexee ñu bañ di dajji ay siis di kii parce que loolu sax léegi CNG de lutte bi ak sécurité bi jël nañ ci matuwaay yu wóor bu yeboo nag supporters yi ci xel ñu déglu Eumeu Sène ci question. non man ay supporters noobu laa am parce que samay supporters mosu ñu def loolu te je pense que duñ def jàppal waaw waaw làmb la rek combat bi euh, ñu koy waajal kon ni ñu préparé leen combat yi je pense que ne combat bu soof ku xam ne xam na ñoom jëlee ci moom ku xam ne Eumeu Sène tamit fu la jëlee ci moom kon nu mu waxee bu ko bëree làmb moom incha allah jëloon na làmb ji gaaw incha allah. léegi léegi eh, booy ñoom ñoom nee nañ kan moo kan moo laaj loolu. Bamba Bamba Major TV nee na présence su Boy Niang day wane ni amul benn ñagas ñagas bu seen diggante ñaar jàmbaar. ñii sumay rak lañ maa seen mag du dëgg kon euh, doxaayu mag rek laay doxee du dëgg kilifa laa te fi kilifa laay doxee sumay rak lañ du dëgg amul benn problème jullit laa jéggal naa ñëpp baal naa ñëpp sumay rak lañ su ñu amee bis dinaa ci teew dinaa def ko nu ma dem def parce que àdduna amul solo àdduna dafa gàtt du dëgg jaajëf maa ngi nuyu nag léegi ñu bàyyi la nga nga maa ngi nuyu nag waa Pikine yëpp ak mbeuru pigine yeb di ñaanal euh, Ama combat bi muy duggu yalla may ko ci mu jël roi bi mu gagné boy ñaa combat bi nek ci kanam tam aussi ma nga ñaan yalla may ko ndam sokk tam aussi ma nga ñaanal yalla suñu borom may ko ndam ak mbeuru pigine yëpp si ñepp ma ngi seen ginaaw man drapo pigine moma ñor ta ma ngi seen ginaaw inshallah suma jige ci lool nak ma ngi euh, bu baax baax may sant yeb bayt rasul bi yeb Goumba Gueye tam aussi maa nuyu di nuyu waa AS Pikine jóge fa tam aussi di nuyu waa Casamance bu baax sama mbokku joolaa yi di nuyu tam aussi sama mbokku séeréer yi di ñaanal Casamance yàlla na fa jàmm am parce que Sénégal benn bopp gëmul ko xar ñaar waa Gambie tamit aussi aw ma seen fay di nuyuwaat waa Pikine di nuyuwaat waa Pikine di nuyuwaat waa Pikine aw lu Pikine fi laa juddoo yaroo fi màggee fi doomu Pikine 100 la di nuyu waa ginnaaw raay tam aussi bu baax. du nuyu tam aussi waa Mbaaw jigéenu Mbaaw bi tamit aussi maa leen nuyu parce que jigéenu Mbaaw yëpp dañ dañ def délégation mag jël lu ñu am yëpp boole ko ñooy jàppale su ko mbaax xoolu ñu ne tey ni maa ngi gañe lii wala maa ngi gañe nangam ñu jël seen ñàkk yëpp def ko ci du nuyu tamit aussi seen borom kër yi leen bàyyi tamit aussi ak ñi tamit ñu leen ñu leen ñu leen doole ci loolu maa ngi sant waa Mbaaw bu baax a baax a baax ama seen junior tamit aussi maa ngi koy nuyu baax a baax du tamit bis yu mu indi tamit aussi vraiment kontaan naa ci kontaan naa ci yow bu baax a baax a baax a baax Isaaxa naa ci maa ngi nuyu tamit Modou Gueye bu baax baax di nuyu tamit aussi euh, maa ngi nuyu tamit aussi waa Taay Singa ñëpp na yow boo demee ba ne ama rek mooy lépp mën na yow li nga bokk kenn li nga li nga ci kii yow ñoo maa ngi nuyu tamit aussi Pape Sarr suma gaay la maa nuyu Abdou Aziz Aziz Djiné maa ngi nuyu baax sonn nga ci baax a baax di nuyu ñoom lay benn. Pape Sarr nee na bi mooy last teemam de bii nee na bii la lay gunge mu jeex. waaw incha allah maa ngi nuyu gaay yi maanaam yëpp ci nekk turam ak santam di nuyu tam aussi sama bokk commando yi armée bi yëpp maa ngi leen di nuyu waa police nuyu naa leen maa ngi nuyu maa ngi nuyu ñëpp armée bi yëpp para yeeg xam nga godo yi xam nga maa ngi kulib li nga juum maa ngi nuyu armée bi armée Sénégal yëpp di nuyu tamit Matar Ba monsieur le ministre monsieur le ministre Matar Ba maa ngi koy nuyu borom bés bi nga xam ne moom lañ ko tuddee mu nekk suma xarit nekk suma doomu ndey te gis nañ ba mu ñëwee ci sport ba léegi sport dafa yokk am nañu arène nationale du dëgg ñu fa indi fi coupe d' Afrique yàlla coupe du monde ñëw yàlla mun na ko yàlla ak yàlla def

ñu ngi koy nuyu sonn ci combat bu baax a baax a baax du nuyu waa Lat Mbengue bu baax a baax nuyu Abim Ndiaye ku lim da ngay juum xaalis joxaane ñëpp maa ngi nuyu ñëpp Alassane Lo Barkala Moro Sarr gaa ñu fàttali leen ni suba mbuur la ñu jëm bombardier moo woote open press bi open press bi passé bombardier mere nañu bëri ci press bi parce que kenn demul nañ ci jàpp waxuma leen press bi laay waxal maa ngi nuyu Latif Latif Latif sonn na ceeb bu baax ak ñi organisé organisation bi si jàpp ñëpp ñëpp ñëpp Omar suma a fan si club maa ngi nuyu maa ngi wax gaa yëpp ñu maa ngi tàllal loxo Pikine waa yëpp ak fu supporter nekk maa ngi koy nuyu waaw amul nag amul coppeeru amul coppeeru waaw waaw ay